sëriñ Maamoor wax na ne mi ngi leen di sant ndax moo leen fi woo li tax nag gisu leen ko fi tey jii dafa am ay ab siyaar boo xam ne ni fondation Xaadim Rasul bi nekk États-Unis tey jii dañ fa yendu bu ñu fa jógee léegi nii sax ña nga woon ca sëñ Muntaxa xalifatullah am lil muridina atallaahu baqaahu léegi loolu loolu rek moo tax gisu leen ko fi waaye fii moo fi waroon a toog ndax moo leen fi woo ngir bëgg sotteente ak yéen loo xam ne day mbirum réew mi waaye di doon mbirum sunuy doom doon it mbirum askan wi yëpp ci yëngu-yëngu yi nga xam ne amoon na fi ci fan yi ci jàngoom bii nga xam ne moom moo ko tabax sanc ko ngir jëmmi yàlla sëriñ bi ne mi ngi leen sant bu baax a baax ci wuy si gi ngeen ko wuy si fas yéene ànd ak moom ci jottalil ko lenn ci xibaar yi nga xam ne kon dangeen ko fi taatale waaye moom ni mu koy faral di waxee moom nee na duuma publicité damay informé loolu mooy li nga xam ne ci lay dox nga xam ne kon léegi loolu lañ see mën a dégg mooy bépp xibaar boo xam ne yéen ngi koy jële fii xibaar la boo xam ne bu wér la bu nu wérlu la man koo def jox ay resource ak référence yu leer nañ sëriñ Mamour wax ne université bi de moom moo ko sos ci coobare yi boppam ngir jéem cee liggéey yàlla sof ca la nga xam ne moom la fi baayam bàyyi woon ca mooy Cheikh Ahmadou Mourtada ñu bokkoon xam ne ñu ngi tegoon xeer wi le 16 mars 2007 ci ndigalul Serigne Saliou Mbacke mu yebaloon Serigne Alaaji Baara ak Serigne Mountakha yaakaar naa ne affiche ki mi ngi nii muy muy lu leer naññ ñu mu ne ci ne ci ba yàlla dogal ba ñu agsi fii waaye nee na fi muy tàmbalee rek mooy moom fa mu tàmbalee dafa sori. ndax 2008 ci la tàmbali woon di ne ci jéego yi ndax dafa gisoon ne ñiy jàng arab amul benn wàccuwaay boo xam ne mën nañ koo def ci biir société bi lu dul jàngale ji dugg ci jàkk yi dugg ci jumaa yi loolu rek amatul beneen lu mu doon kii. moom ci sim boppam mu jël ci xaalisu boppam tànn ñaar fukki ndaw ak ñaar wutal leen ay professeur ñu jàngal leen matières yi nga xam ne dañ koy soxla mat ak physique ak SVT ak ak yooyu yëpp. mu tudde woon léegi lël boobee léegi centre d'excellence muy deux mille 2008 mu necc ak ñoom necc ak ñoom ba yàlla dogal ñu am ñetti at bu ñu amee ñetti at loolu yi nga xam ne moo ko créé woon ci coobare yi boppam ay arabisants pur mu yóbbu leen lycée mixte de la Fosse mu ñu nekk deux candidats yàlla dogal 18 yëpp at mi te yàlla dogal na it maanaam ay candidats ñoo jël première bi waaye ñoo jël troisième ba kon foofu kon fa la tàmbalee di liggéey muy 2008 boobu. bi nga xamee ne loolu am na jamono boobee amoon na ay jafe-jafe ndax dañu reconnaître bagu arab wala duñ ko reconnaître waaye gannaaw gis nañ ne sëñ Maamoor def na ay preuve ci njàngam arab ba nga xam ne étudiant arabe bi nga xam ne maanaam baa la tàmbalee dem na ba jiitu sax ki nga xam ne maanaam ba mu tàmbalee maanaam a la tàmbalee ci am njàngam ndax bu demee ba lycée mixte de la force ci technique ba maanaam ay étudiants di jël première ba di jël troisième ba loolu moom réussite la boo xam ne nii kon yàlla defal na ko ko. moom du mënu ko wax nag waaye ñun ñoo koy wax mu nekk ak état bi ñu ànd di liggéey di liggéey ba yàlla dogal état bi ñu ànd dëppoo ci procédure boo xam ne nii maanaam baggu arab bu bu bu état bi reconnaître la te mu mu nekk ci mois de mille 2013 bi nga xamee ne loolu am na nga xam ne état bi reconnaître baggu arab di jël ba bachelier yooyu di leen dugal ci Cheikh Anta Diop di leen dugal ci Gaston Berger léegi nag ci la sëñ Maamor soppee centre d'excellence yi léegi yóbbu ko ci léegi léegi centre de euh, universitaires xam naa dañuy tënk rek ndax njëkkante ak waxtu wi rek waaye foofu nee na sëriñ bi nee na mi ngi sant état bi bu baax a baax ndax gannaaw bac bac laar la woon bac laar léegi moom moom ci la amoon autorisation waaye yàlla dogal na moom may nañ ko mu ubbi ay filière scientifique ba def ci ay résultats yoo xam ne yu am solo la tey bu leen bëggee wax rek na ñi nga xam ne ñoo génn dakaar ci bi sëñ Maam Mor tàmbalee exercice boobu bees bi te mooy léegi 2008 ba 2022 sëñ Maam Mor génne na 199 diplômé yoo xam ne nii ñii BT la la am ñii BTS la am ñii DTS la ñu am diggante 2008 ba 2022 génne na ci produit 199 yoo xam ne ci diggante BT BTS ak DTS. génne na fi ci date boobu ma la wax 2008 ba 2022 ma ñoo ngi ci Dakar de 67 licence yoo xam ne nii licence professionnelle lañ kon loo tax mu ne foofu lay gën a sant état bi ndax autorisation bac laar la woon waaye gis nga ne yii ma leen wax yëpp ay bac technique la kon foofu loola ca moom moo ko sabab lu ba yàlla dogal ba am ci nga xam ne boo xoolee dakaar rek boo jëlee 199 diplôme yooyu diplôme maanaam brevet de technique de technicien supérieur ak ak BTS muy brevet de technique ak DTS muy diplôme te wax waa de technicien supérieur te wax la ne 199 la ci ma sëñ Mamour produit ci moom Yankhoba Badiane bi moo nekkoon directeur bi ba suñu jamono tey ji moo nekk directeur bi. léegi nga dolli ci 67 licence professionnelle ci yan xeet yaakaar naa secrétariat bureautique léegi session ak yu mel ne ki noonu yëpp loola sëñ Mamour produit na ko defal ko léegi. réew mi waaye defal ko it arabisant yi nga xam ne bu njëkk amuñu woon fu ñu mën a teg seen tànk boo ñëwee ci Bambey Bambey it léegi am na fa ñaar fukk ak juróom vingt cinq diplôme yoo xam ne ñoom DTS la ñu am diplôme technicien supérieur ci Bambey ci agri élevage ak léegi ak agronomie produire na fi cinquante sept cinquante trois licence yoo xam ne licence professionnelle la nga xam ne kon centre Bambey ba génne na ci ay diplôme dix 78 diplômes cinq yi ay techniciens lañ 53 yi ay licence professionnelle lañ lii lépp suñu maamoor def na ko ci maanaam ci euh, langue arab bi jëlee ay arabisants yu mu yu mu préparé ba ñu mujj dem léegi nekk ci niveau bii nii nekk ay techniciens supérieurs ak nekk ay ingénieurs. bu ñu ñëwee ci Touba fii ñu nekk Touba ñoom ñu ngi ko ubbi le 2018 ci teewaayu sëñ Mountakha Touba première. génération bi fi génn dafa leen leen ak feet daaw le 30 mars booba 129 ñoo ci génnoon ren jii deuxième promotion bi 123 la nga xam ne kon boo xoolee centre Touba bi rek produire na 252 licences maanaam de sciences religieuses muy centre Ndar bi ñoom ren jii la ñu war a présenter seen première licence kon nag foofu lii mooy lenn ci li nga xam ne sëñ Mamour réussir na ko te defal ko arabisants yi waaye it participer ko comme citoyen bu nekk ci réew mi war a yar ay doomam war a maanaam bokk ci liy doxal réew mi mu def ko ci coobaree boppam nag mus kenn mus sa gis mu taxaw fi benn barab ne dimbali leen ma wala carte soutien wala lii wala laa lu mu am def ca lu mu amul xaar yàlla bu amaatee léegi dox dox ca ci loolu lay nekk bâtiment yi ngeen fi gis yëpp moom moo ko tabax professeur yi nga xam ne ñooy déplacé ak seen i indemnité suñ maamoor moo koy joxe te loolu kon daa xam ne ay doomam lay jëf lay jëflanteel état bu Sénégal lay lay liggéeyal te loolu amul kenn comme ci xaar amul kenn comme ci sàkku ndimbal waaye nag li ñu leen waxoon léegi sant na ci état bi ndax it jàppale na ko ba mu mën a jóge ci laar bag laar di produire ay licenciés yoo xam ne ni ay centaine de la mu du ñoom nekk ay professeur yaakaar naa ne ñenn ñi bu ñu jëlee kàddu loola dana gën a firndéwu ndax ñoom ñoo ma gën a xam te fi doon ñoom ñu ngi ci terrain bi dikkee kon loogi léegi loolu bu ngeen gisee yëngatu bi am nag xëy na am na ay sabab yu baree bari yoo xam ne nii moo ko waral am na ñun luñ ci xam am na yit yéen lu ngeen ci xam waaye daal ngeen xam ne seen Mamour dafa tabax université bi ci moyen ni boppam doomam jàngu ci ab jarbaatam jàngu ci rakkam jàngu ci da koo def ngir jaami yàlla yi da koo def ngir citoyen sénégalais yi te jéggi na Sénégal sax ndax ñu ngi ci juróom benn nationalité yoo xam ne ñu ngi jàng ci université bi fi mu toll nii. kon loolu bu ko defee bu ñu demee ba tollu fii nag ay yëngu am loolu moom moo moo ko étudiant ñoo ànd dëkk bu mu mën a doon réew mu mën a doon étudiant yi moom loolu seen aada la loolu seen baax la waaye nag ñun liñ leen di laabiré ndax ñun su suñu jëm bopp dem nañ ba xam ne. am na ñu baree bari ñu bokkoon ci yëngatu bi ca sax jàngewuñ fii xam nañ yeneen université yu ñuy jàng loola ñun def nañ suñuy gëstu ba am ca lu leer nañ mu mel ni am na mbootaay goy guy tuddee seen bopp ay arabu fon ñoom ñoo wax ne ñi ci ëpp ñooy influence ak di filtre gone yi di leen wax ay yoo xam ne nii xëy na taxul mu wér ci loolu la ma ca gën a mën a joxe fitna mooy samedi bii ñu paase rek maa ngi wax ci contrôle su kii commissaire bu ndaamaatu ak commissaire bu guy mbind ak commissaire bu Mbàkke ñoom ñëpp teew woon nañ réunion bi am na ku fa wax ne ñun élève bi ñu ngi koy commencé encadré bu amee ba BFEM di ko encadré ba mu am bac ñu di ko encadré ba muy dugg campus ñu di ko encadré ba xam ban ban faculté ak ban université lay jàng xam ñooñu kooka ci kanam commissaire yi wax na ne dañoo war a dem ba sensé constitution sénégalais bi kooku xam nga ne kon mu ngi ci beneen mbir bu bokkut ak bi gone yi nekk yëmi si loolu nee na état bi université français yii nga xam ne moom lay jànge moom lay jàngale ay doomam war naa mën a wut ay ay université arabe yoo xam ne ni arabe yi ñu ëpp ay moyen ca ñoo dàq finance loolu lépp kilifa yeeg homme de tenue yi ñu ngi toog di dégg loolu. yëngu si loolu dem na sax ba mujj mu mu mu mu menacé ne gone yi ñun ñoo leen calmé waaye bis bu ñu jógaatee da ngeen xam ne jóg na kon loolu tax ma ne la bu dee gone yi ñu xamoon kese kese kese gone yi suñuy gone lañu amuñu benn jafe waaye nag dafa am xelum mag mu dugg seen biir ca xelum mag moomee da leen di yàqal te ñooñu ñi nga xam ne ñooy woote mbootaay googi noonu ah man de wax naa lenn ci li sëñ Mamour réalisé mi ngi nii man ngeen di teg seen bët waaye man gisaguma ñoom ñoo ñii di xam bu gone yi ana lan la ñu defal arabisant yi ba ñu tàmbalee di coow ba suñ jamono tey ji xam naa du jar may guddal waaye ndax ah, na li ñu bëgg a tënk rek mooy maanaam daal gone yi am nañu leen gemb xam nañ ko am nañ ci firnde yu leer a leer lii ma leen wax nii rek doy na ci sëkk firnde ndax ku dem ba naan dañuy nañ changé constitution Sénégal kooku yaa ngi am leneen loo jublu ku dem ba naan université français nañ leen fi éliminer def ko ay université arabe kooku am na leneen loo visé te loolu nag man du samay domaine du samay compétence ndax yàlla dogal na mbooleem ñetti commissaire yi nga xam ne ñoo ñoo yilif gox bi te woon nañ wax jooju te dégg nañ ko seen bopp ñoom xam nañ lañ ca war a mën a taxaw waaye loolu nag dañ da di dañ leen koo war a wax ngeen xam ne ñun gone yi seen jëm bopp wax nañ ci kanam commissaire bi commissaire yëpp ne ñun amuñoo problème Serigne Mamour amuñoo problème sax administration bi ñun état la ñu amal problème ba commissaire am na lu mu leen détaillé du jar mu see àgg waaye daal mën na ne yemale foofu kàddu gi ndax ba ñu jël temps bi ndax yeneen intervenant yi sëñ Mamour daal nee na waaw léegi bu ñu wax am na ñoo xam ne dañoo génn ci université bi fii kii docteur la dana dana présenté boppam kii ni ingénieur la mu ngi liggéey de semence de Sahel ak Sonatel bii nii bu ngeen ca demee am na ko benn ingénieur bu fa nekk ku ñuy wax Ibrahima Ndiaye bu ngeen demee léegi national gendarmerie nationale te jaw mu nekkoon na ci mission ONICES fii la fii la fii la génne. kon boo ko toppee boo demee euh, Thiès ci banque centrale ba da nga fekk ñoo Aminata Dabo moo topp ci directeur ba waaw boo demee euh, Thiès waaw boo demee Thiès da nga fa fekk maanaam Issa Diop ferme ba mu yore. waa INSEP yi bu ñu soxlaa ay stagiaires fu su foofu la ñuy dem nga dem Bambey fekk fa ko ñuy wax xaadim jong xaadim jong boobu bëy wu dugg Dakar ak xar mu dugg dakaar ak foo mën a duggee ci réew yi xaadim jong mooy joxe autorisation léegi ñu war koo mën a lewetal wala ñu war koo mën a xam ki bu ne bi baaxul day kii te produit ICAB la mu ngi génn Bambey bii tey ñu ngi koy félicité tey ji dafa am am tudd yàlla ko yàlla defal taw tawfiq kon loolu daal mën ne suta wax lépp daal waaye mën na naa yem foofu rek waaw. maa ngi tudd Yankhoba Badiane nekk directeur centre universitaire bu université Cheikh Ahmadou Bamba bi nekk Dakar Fass Mbao euh, comme ni ko sëñ Abdourahmane waxee xam ngeen ni université Cheikh Ahmadou Bamba université la bu privé à caractère social université boo xam ni sëriñ Mamoor Mbàkke Murtada moo ko sos wax na année bi léegi en 2006 pour mu nekk prolongement wu institut al yi nga xam ni sëriñ Murtada moo ko fondé woon fii ci Ndaam en 1974 en 2008 la université bi commencé ses formation à travers ces différents centres d'excellence pour l'enseignement et la formation professionnelle créer benn révolution bu mag ci enseignement arabo-islamique au Sénégal mooy intégrer intégrer formation professionnelle ci biir école arabe loolu mosul woon am avant 2008 ca booba itam contexte bi ñëpp xam nañ ko moo nekkoon nii arabisants yi bu ñu musaan jàng ba am baccalauréat du ñu mën a def lu dul dem bitim réew jàngi dem ci pays arab yi dem ci université yi buñ fa amee seen i licence wala seen i master ñu dellusiwaat fii au Sénégal sëriñ bi gis ni loolu am na saturation parce que li ñuy former chaque année ñuy am bac dafa bari ci sëriñ Mourtada daana ci def jéego bu am solo bu mujj bi sax demoon na ba Maroc ba amoon fa benn accord bu tax chaque année daan nañ ko may une dizaine de bourses yoo xam ne daf ko daan séddale ñi gën a jàmbaare ñi raw ci examen yi ñeneen ñi dem fu mel ni Égypte ñi dem fu mel ni Tunisie ak feneen ak feneen sëriñ bi nii waruñu nekk rek pépinière boo xam ni dañuy former di jox université arab yi ñoom tam ñuy former ci beneen anam xaj na boo xam ni mën na wuute ak ñun li ñu tax a jóg surtout ci wàllu théologie ndax endoctrinement mën na ci am kon pour des raisons géopolitiques bu la neexee économique sociale religieuse la sëñ bi gisee nécessité wu tàmbali anticiper même tabaxub université bi pour démarrer les formations surtout en ce qui concerne les formations professionnelles loolu moom la sëñ bi wax léegi ñu démarrer ko à Dakar et à Bambey avec deux filières techniques benn bi électromécanique bi ci des agriculture et élevage ginnaaw bi à Dakar ñu dolliwaat sa bureautique bureautique à Bambey ñu dolliwaat fa li ñuy tuddee contrôle et gestion d'une exploitation agricole pour des BTS booba li nekkoon objectif u sëñ bi mooy enlever des barrières d'abord ce kon appelle les barrières parce que arabisants yi mënuñu woon def benn formation au Sénégal ndax dañoo amoon benn handicap mooy làkk wi ñu jàngee amuñu ay ingénieur ak ay formateurs yu leen jàngal fii ci biir Sénégal loolu taxoon avec tous les techniciens techniciens du ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle à l'époque ñu xalaatoon gis ni mënul woon a ñàkk ñu def ay années préparatoires ay années de mise à niveau pour yëkkati niveau xale yi surtout ci làkku français ak mathématiques pour ñu mën a def ay formations techniques année bu njëkk bi sax mën nga ni ay classe classe pilote lañu lañu la ñu euh, mettre en place sous le contrôle du ministère à l'époque bi année boobu jàllee ak réussite xale yi am résultat yu baax ci la ñu door a am autorisation de l'État pour mën a dérouler ay formation dans les filières techniques ndax xam ngeen yéen ni ku jàng ak loo mën a jàng ba am baccalauréat surtout ci série elle mënuloo def formation en électromécanique wala en informatique de gestion wala en agriculture et élevage donc il fallait ñu enlever aussi barrière boobu contourner ko faire en sorte que xale yi mën a am ay années préparatoires yu leen di permettre pour ñu dem vers des formations diplômantes dans des filières techniques reculer pour mieux sauter amoon nañu ay baccalauréat non reconnu parce que le bac arabe n'était pas reconnu mais dañu ni woon sëñ bi daf ñu woon bu leen def lu informel parce que bu boobaa ñun dañuy dolli ci xar mi kawar dañuy def li fi nekkoon rek continuer di former ay diplôme non reconnu fàttaliku ngeen yéen journalistes yi ak mbooleem Sénégal yi bi fi arabisants yi di def ay marche di organiser ay dox ñaxtu di wax ni dañoo bëgg ñu reconnaître le baccalauréat arabe ci contexte bi moom moo taxoon mu ni état mënul reconnaître ay baccalauréat yoo xam ni xamul ku ko defar ak fu ko defaree ak lan mooy programme

ñu dem des diplômes d'État commençant par des BT équivalent d'un bac technique BT mooy brevet de technicien mais en allant vers un BT comme étudiants yi am nañ quatre ans de formation une année préparatoire plus trois années de formation daanañ am possibilité ñu ñu leen di présenter ñuy dem defi ay CAP surtout ci wàllu électricité BEP électromécanique rawatina ak en attendant ñuy am seen BT l'objectif moo nekkoon que du ñu am zéro déchet école bi ku fi dugg ku ne au minimum da nga génnaale avec un diplôme loolu sëñ bi wax na ko léegi dafa nekkoon expérience bu am réussite bu doy waar boo xam ne dafa révolutionner enseignement arabo islamique au Sénégal ndax pour la première fois di des candidats arabophones dem ci les différents centres d'examen de l'État CFPT Sénégal Japon G15 euh, lycée de la Fosse di participer ci ay examen d'état pour am seeni diplôme d'état ba pare di faraw session 2011 12 ki raw lycée de la Fosse filière industrielle électromécanique Thierno Souleymane Faye la tudd mu ngi génne Al bu jees fa la amee woon bakkam mën nga wax ni mosul def l'école française foofu la révolution bi commencé loolu aussi moo encouragé état bi moo motiver état bi pour mu organiser le bac arabe l'ancien ministre de l'enseignement supérieur Mary Teuw Niane wax na ko ci façon bu leer ci cérémonie de remise de diplôme yi ñu defoon pour la première promotion bu ñoom docteur Anne mii ci lañ bokk moom mii ci la bokkoon ca promotion booba ca la ministre bi waxoon parce que ministre Mary Teuw Niane moo fa ñëwoon nekkoon ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation ak Serigne Mbaye Thiam ministre de l'éducation à l'époque ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle euh, waroon fa teew am empêchement mu yebale fa ay délocation ay <coughs> représentant keroog le ministre de la l'enseignement supérieur Mary Teuw dafa waxoon ni président de la république jox na ma instruction pour ma organiser le bac arabe ndax ku ne xam na ni bacaloria mooy premier diplôme bu enseignement supérieur liggéey naa ci ak samay technicien def nañu ay atelier ba tiir nañu ay conclusion mën nañu wax ni am nañu ay proposition de programme mais lii suñu jafe-jafe mooy bu ñu organiser baccalauréat ba pare xam nañ ni dana am ay bachelier te bachelier yooyu amaguñ fu ñu leen mën a orienté parce que le département arab rek moo fi nekkoon benn destination pour les pour les bacheliers waaye bi ma gisee li sëñ Mamor liggéey <coughs> bi ma gisee li sëñ Mamor liggéey ci formation yii muy def pour les pour les arabophones am nañ courage pour organiser le baccalauréat arabe et incha allah joxe dat ni le baccalauréat arabe sera organiser kon loolu mooy rôle bi sëñ Mamor joué ci l'organisation wala ñenn ñi naan la reconnaissance du baccalauréat arabe depuis booba nag 2013. tout de suite après l'organisation du baccalauréat arabe ministère dafa demander sëñ Mamor mu defal ko li ñu tuddee ay offre de formation parce que daf ñu dañ da koy orienter ay bachelier ñu offre ñu euh, euh, offrir comme comme comme comme filière de de de formation électromécanique nga xam déjà ma nga foon informatique de gestion secrétariat bureautique dolliwaat bambay mooy li ma agriculture élevage ñu dolliwaat ci contrôle et gestion d'une exploitation agricole. booba ba léegi ci doxalin woowu faculté bi commencé gul woon ak bi nekk Saint-Louis ñu continuer kon 2013 di recevoir des bacheliers de l'État di collaborer ak État sur la base d'un contrat de partenariat PPP public privé bu exemplaire ndax yéen ñëpp xam ngeen en tant que journaliste yëg ngeen ba tàyyi ni école privée yi dem nañ ba facture bu am solo lu jege 16 milliards bu ñu wax ni état bi daf leen ko yoreel tax ñu doon dàq di génne les bacheliers orientés par l'état ba ñoom ñuy def ay marche naan dañoo bëgg a jàng dama naa marche booba xam ne bii mooy marche contraire bi ñii moom nee dañuy dakkal seenu njàng. ñooñu dañu doon dem ba buntu ETS di wax ne dañoo bëgg état bi wutal ñu ay pexe soit mu fay école yi wala mu wutalaat ñu yeneen pexe pour ñu continuer jàng euh, waaye sëñ Mamour ci moment boobu ca temps loolu daloon école yi muy ay facture impayée mi ngi doon dal ci kawam waaye moom daf ni éducation vocation am la ndonoom la lu muy continuer la état daf ko ciy jàppale rek kon état fay na ay facture wala fayul ay facture loolu moom yoonam nekku ci moom lu ñu soxla nañ ko ko laaj moo xam charge sociale la moo xam euh, consommation la ci biir li ñuy tudd ay fonctionnement ay facture lépp loo xam ni ba ci sax lii fay jàngalekat yi ak PATS yi moom daf ni moo koy jël en charge saa bu ko état bi fayee baax na bu ko fayut du génnee jamais benn doomu Sénégal ci biti te fekk kooku bëgg a jàng parce que sëñ laa dafa daan wax naan ku bëgg a jàng rawatina ku bëgg a jàng diine dañ laa war a fay wala waroo fay kenn loolu tax mu ni moom jàngale vocation la depuis booba ak léegi pour des secrets professionnel ak ni sëriñ biy doxee ku ne xam na retard yi am ci payment yi état bi di fay. waaye sëriñ bi musu koo tudd musul nangu sax ñu wax jëm ci côté boobu chaque année dana fexe ba li ëpp solo ci li tax étudiants yi ñëw fi muy njàng mu am ni mu war a amee recruter ay professeurs ay enseignants chercheurs de au niveau bu ngeen bëggee bu leen neexee mën nañ leen bu yi jeexee mën ngeen def ay investigation xool ba ci même liste professeurs yi intervenir ak seen niveau yi ñu am ak certification ak yi ñu am. fexe itam ba cadre bi parce que université cadre daf ci bokk mën a dëppoo ak njàngaleem université fi ñu toll nii ci jamono ji fii ñu nekk ci ndaam gis ngeen amphi bi fi nekk gis ngeen construction yi fi nekk bu ngeen paree mën ngeen ko visité li ñu tuddee infrastructure pédagogique lépp amul kenn ku ci jàppale sëñ boole ku ko ci dimbali du tubaab du naar du benn ndimbal bu jógee penku orient wala bu jógee sow l'Occident toujours daf nay wax ni ku lay dimbali sax ci wàllu njàng daf lay conditionné ci sa programme te ñun dañoo bëgg am autonomie donc c'est une université faite part nous et pour nous loolu tax nag mu def ko doomam nekku ci jarbaatam nekku ci man ba Badiane laa tudd un pur produit des instituts Al Azhar fi laa defee sama njàng yépp primaire ba bu may am baccalauréat door a dem ci yeneen école supérieur def fa samay diplôme supérieur def fa samay étude dikkaat encore ci moment bi may def sax njàng moom maa ngi liggéey ci biir établissement bi loolu li ma jublu ci wax ko mooy moom buy tànn nit da koy teg rek xaj na ci yaakaar ju mu am ci moom ak compétence bu mu gis ci moom waaye xoolu ci distinction kii lii la wala kee lee la kon ñiy jàngale ci biir école bi sëñ bi xàmmewu ci murit xàmmewu ci tiijaan boo demee Dakar am nañ fa ay professeurs yoo xam ne ay chrétiens lañ te ñu ngi dugg ci biir école bi di jàngale nekk fa nag vraiment ay ñu exemplaire ci centre yëpp noonu la amee tey fii bu ñu soxla woon professeur boo xam ne compétence bi ki ko am ab chrétien la daf koy contacteel boppam recruter ko defal ko signature de contrat de prestataire comme ni ñu koy defalee pour tout le monde mu liggéey. comme ni ñuy liggéey ci yeneen université yeeg yeneen barab yi ci des yëpp kon barab bi amul distinction sëñ bi dafa daan wax naan dégg ngeen ko toujours mu di ko wax ñun arab taxuñoo jóg parce que moom dafay bañ toujours ay clivage di am yoo xam daf ñuy yóbbu ci ay discrimination ñuy xool naan kii arabophone la kii francophone la danaan ñun jànguñu arab pour doon ay arab arab bi dañ koy jàng diine ji moo ñu booleek moom français itam bu ñu koy jàng dañ koy jëfandikoo comme outil pour mën a wut xam-xam ak anglais donc moom dafa am gisin bu universel ubbeeku en matière d'éducation et de formation looloo tax xam ngeen ni mu commencé par des des programme de formation professionnelle mais ci biir programme de formation professionnelle dafa waxoon ni ñun bëgguñu transformation jël ku jàng arab ba am baccalauréat arabe am xam-xamu diine ñu transformer ko mu nekk un ouvrier un technicien déedéet dañoo bëgg ñaar yëpp ànd looloo taxoon mu waxoon wax ju siiwam jooju nga xam ñu suñ suñu slogan la woon mooy forme des imams ingénieurs looloo tax chaque programme ba léegi dans chaque programme dañ ciy fekk module science islamique ñu diviser ko en deux benn partie bi di la littérature arabe beneen bi ci des di science islamique science religieuse donc lii mooy indi UCAB c'est très baax na trop jàpp naa ni ñu di ko fàttali pour ñu xam université bi li ko tax a jóg sa mission parce que xam ngeen nii mission yomb naa xam boo bëggee xam sa mission mooy lan poser sa bopp question lan laay def loo xam ni su ma ko deful woon dana am sooxe ci réew mi. mën naa am ñoo ko bokkal waaye kon da nga naan man ak diw ak diw loolu mooy suñu mission mission wu UCAB mooy jël en charge la formation des bacheliers francophones arabophones man leen a ubbil ay opportunités ak ay possibilités yu mën a def ay formation ci anam yépp ba tax dootuñu leen xoole bëtub bu ëllëgee mënuñoo def lu dul jàngale rek wala dem ci jàkka ji prêcher kon loolu moo tax loolu mooy mission wu UCAB sa vision moo nekk fexe que UCAB mën a nekk benn université parmi les meilleures universités fii ci Afrique rawatina Afrique soowu jant ak ci àdduna bi yëpp bañ a xep suñu bopp di génne nag ay produits yoo xam ni dañuy am ay compétences ci anam yëpp rawatina technique ak professionnel ak wàllu diine parce que mooy fondement bi mais am esprit d'ouverture am cofeel li ñuy tuddee l'amour bëgg doomu aadama aw ànd akuk nit ak euh, nooy wet bu ñu ko waxee on parle beaucoup parfois de la non violence de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul UCAB produit foofu lay gën a jëm ci wàllu woowu dàq li ñuy tuddee intégrisme walla bëtub xool xeebeel booy xool sa moroom wala booy xool sa bopp loolu moo tax UCAB jóg euh, kon ci wàll woowu biñ ci nekkee di liggéey ak léegi résultat yi wane na boppam euh, le doyen wax na ko léegi foo dem secteur boo dem rek presque am nañ fa ay sortants fii ñuy wax ak yéen am nañ dizaine ay une dizaine de sortants de l'université Cheikh Ahmadou Bamba yoo xam ni ñu nga Canada di fa def seen i ingénieurat ñeneen ñi ci def sax pare nañ boo demee France fekk ko fa la même chose partout presque dans le monde am na ñu nekk Turquie am na ñoo xam ne ñu ngi fii ci biir réew mi aussi. di continuer ñenn ñi ñu ngi ci enseignement public bi comme professeur euh, euh, euh, technique am ñoo xam ni ñu ngi ci aussi ci enseignement général di jàngale. boo demee ci organisation itam surtout rawatina ci industrie yi da nga fa fekk ay sortants de l'UCAB bu ñu ko doon lim du jeex surtout nag grandes organisations yi nekk fii ci biir réew mi loolu mooy produit yi am na ay documentaire ay ay. ay euh, reportage yu ñu def yoo xam dem nañ ba ci alumni yi les sorton fekk leen fi ñuy liggéey am ay témoignages recueillir ay témoignages u seen i directeur euh, de ressources humaines parce que dañuy bëgg a am feedback dañuy bëgg a am retour li ñu formé lan la joxe ci marché bi surtout wàllu insertion parce que qui parle de formation parle euh, obligatoirement de l'insertion depuis booba nag ak léegi UCAB mosul am problème étudiants yi bi ñuy door a commencé nee naa leen social la ñun ñoo forcé woon ni étudiant bu ne ñoom aan ñii da nga fay 15000 francs pourquoi ngay fay mille parce que dañ koy soxla dañuy jënd ay craie dañuy soxla ay déplacement dañuy soxla nangam nangam yërëm nañ si sëñ bi ci charge yu métti yi fan ngeen mës a gisee formation professionnelle pour de fi surtout ci filières yi ma tudd fii léegi électromécanique informatique gestion ak ak secrétariat bureautique nga dem di former après boo amee sa bac di fay 15000 par mois. ñoom ñu ngi nii toog duñ ko weddi moom lañ doon fay ba ñuy génn et la plupart d'entre eux am na ci ñoo xam ni sax dañoo demoon ba mu xaw a metti ci ñoom sëñ bi nañ leen bàyyi moom mooy jël lépp en charge beneen bi ci des mooy xam ngeen bu ngeen yéen journalistes yi xam ngeen ko bu ngeen jógee fii aussi bu ngeen ko laajee mën ngeen koo xam chaque étudiant bu fi état bi orienté ñaata la koy versel par année ñaata la koy fayal pour des raisons professionnelles aussi mënuma toog fii di ko wax mais dans le contrat chaque étudiant orienté par l'État am na lu ñu koy fayal par année loolu képp nag la état bi la établissement bi séq ak état bi ci li muy la ci la prise en charge de la formation de ces étudiants amul benn subvention bu jëm ci wàllu restauration amul benn subvention bu jëm ci wàllu logement amul benn bu jëm ci wàllu recherche c'est-à-dire étudiants yi ñu orienté ñu ñëw fii état bi daf leen fiy orienté mais jëlalu leen lu jëm ci wàllu bibliothèque indi du moom moo leen di installer bibliothèque du moo leen di subvention du mooy créer situation yu tax ñu mën ko am c'est vrai lépp lu jëm ci wàllu recherche établissement bi la war bu ngeen jógee fii gis ni sëñ baa ngi ciy def lu am solo ci wàllu création de bibliothèque bibliothèque livrée bu ngeen demee ngeen xool mais aussi création ay bibliothèque online nga xam ni nit ki man def fu mu toll mu def ay recherche comme ni mu ko bëgg a defee comme Ça se passe dans les plus grandes universités du monde. mais bu jaaxee lu jëm ci logement établissement état bi yorulu ko benn étudiant bu mu orienté dans le privé du UCAB rek bu ngeen jëloon étudiants yi ñuy orienté ci yeneen école privée yi da ngeen gis ni amu ci benn boo xam ne dañ naan boo demee école bu moo lay loger du IAM nga ma xam lool parce que jàngee naa fa du ISM du feneen ak feneen du benn boo xam ne dañ naan dañ lay installer ay restaurant pour étudiants yi donc amul logement sociaux amul restaurant loolu étudiant public bi ñoo ko moom ñoo ko am te du ñëpp ñoo ko am ci ñoom bu dee étudiants yi dem ci privé bi bu état bi jëlee lim soxla lim mën a jël sax laay wax ndax ñëpp la soxla ñu ngi ciy def yu mag ñoom tam bu ñu jëlee li ñu mën a jël ba pare li ci des dañ leen di proposer privé bi. wala ñu yóbbu leen UVS ba léegi ci état bi la bokk ñoom tam peut-être am nañ ay jafe-jafe ay difficultés mais étudiants yi ñu fay yóbbu dañuy xam ni loolu la seen chance dajale te foofu itam am nañu opportunité pour jàng fan nañ fa war a jàngee ñi si ñëw UCAB am na ci ñoo xam ni dañu leen di orienté ci privé bi mais dañuy defaat ay pexe pour ñëw sax UCAB parce que dañ naan formation professionnelle bi fi am amul département arabe te boo demee ci public bi fenn rek nga mën a dem amul option département arabe bu njëkkoon ubbil nañ leen yeneen formation à saint mais année yi passé dañ ko tëjaat looloo tax UCAB mooy seule porte ouverte pour les bacheliers arabophones bu ñu mën a am pour intégrer le monde de l'enseignement de la formation professionnelle pour le moment au Sénégal kon bi loolu amee ci la sëñ bi ni dina fexe ba lépp lu étudia yi soxla ñu am ko moom ci boppam moo njëkk a wax xale yi affaire restaurant ba amoon na ci ab projet fii ba ni damay seet conditions yi c'est vrai que ñun léeg-léeg dañuy xaw a tiit ci condition yi ci affaire restaurant création de restaurant parce que ku ne xam na ni université bu am problème ci àdduna bi rek foofu mooy source principale bi kon nag booy créer restaurant restaurant surtout ngay ab privé boo xam ni sa doole bariwul dangay ngay jóg di daanu ca loo am def ko ci xam nga ni yaa ngi créer loo xam ni ca kanam mën naa am problème waaye teewul toujours mu wax ni waaye xale yi seeni condition de vie yi ñu nekk ci biir ak condition sociale yi war nañ ko xool ba di leen yërëm lu ñu ci mën a dimbali ñu dimbali leen. beneen bi am na étudiants yuy def ay effort loolu tam am na solo dañ koy encouragé mooy li ñu daan tuddee léeg-léeg système parrainage di gis ay partenaires yu leen di parrainer soit ñu wutal leen ay kër ay appartement am ñu ko bokk nekk ci mairie yi danañ ko def élus locaux yi ak bonne volonté yi ak yu mel noonu loolu aussi étudiant établissement bi daf koy encouragé. mais nekkul lu mën a jël en charge nekkul itam benn ci clause yi nga xam ni moom la signé ci biir contrat bi mu séq ak état wu Sénégal mu des nag lu am solo lu jar di rappeler mooy état établissement bi bu fi état bi di orienté étudiant daf koy jox benn certificat d'engagement boo xam daf ko war a lire ba pare signé ko dañ ko jox sax délai bu ko neexee mu yóbbu ko këram wan partagé ko ak ay parents boobu daf caa bokk ni yow étudiant bi amuloo droit di def dara benn activité buy entraver fonctionnement wu activité pédagogique yi wala culturelle yi wala sociale yi am ci biir université bi amuloo sax droit ñu la ci convoqué ngay banque sa loxo document boobu jàpp naa ne bu noppee bu ndee rek mën nañ ko partager ak ak journalistes yi ñu liiral ko seen bopp gis ko xam bu baax ni étudiants yi sax même lii ñuy def nii amuñu ci droit mais sëñ bi ak laa biram lu mel nii amoon na fi daaw ñu dem ci presse bi wax bu ñu ñëwee bi ñu leen bëggee sanctionné pédagogiquement parce que dañoo boycotté ay examen sëñ bi daneen dimbaleel leen leen ngeen defal leen ay rattrapage loolu nag bokk na ci li ñuy wax ñu naan dem googu moo tax yu mel nii di répété wu mais am na loo xam ne kenn ñëmu koo def dans certaines université privées kon euh, le 13 septembre bi passé jékki-jékki rek nañ gis benn euh, plateforme revendicative buy wax ni lii la soxla plateforme boobu sax mën na ma wax ni benn déclaration walla déclaration de grève laa koy tuddee ñun loolu moo ñu ko informé kon ñun ak journalistes yi yéen yéen ci bokk yam ñun ak public bi sénégalais yi ñëpp ñoo ci bokk yam c'est-à-dire grève amul préavis bi binduñu waxuñu yëglewuñu informé wuñu dañoo jékki-jékki rek gis benn kayit buy circuler ci statut yi ak réseaux sociaux yi wax ni dañuy def 72 heures de grève à partir du 13 mercredi jeudi ak vendredi fekk booba samedi war nañu am ay examen vendredi ca guddi ñu gisaat luy circuler wax ni dañuy léegi sax léegi illimité grève grève illimité la te danañ fexe ba examen yooyu du am ñu xëy regroupé wu fii ci buntu établissement bi faculté bi gàllankoor ñi bëggoon a ñëw ci ñoom pour def seeni i examen ba mu naroon naa indi créer altercation ginnaaw bi ci la police ñëwee def liggéeyam administration bi fii tenir une rencontre ak ñoom police le commissaire était présent wax ak ñoom laaj leen lan lañ bëgg ndax officiellement ba léegi amaguñ lu jóge ci étudiants yi lu officiel lu dul këyit woowu ñu gis muy circuler à Dakar aussi waroon nañu def seen examen surtout pour les étudiants de l'année préparatoire wante am na ci ñoom ñu ko def am na ci ñoom ñu ko deful l'établissement prendra ses responsabilités comme dañoo généraliser grève bi dans tous les centres fi mu nekk nii nag la faculté de Touba muy bii ñu nekk nii ak le centre de Dakar ñooy fonctionner ñaar ñi ci sañu nekk en vacances muy bu Ndar bi bu Saint-Louis ak bu bambe ñooy itam ñoo ci gën a peuplé boo demee à Dakar on a plus de 1200 étudiants inscrits boo ñëwee fii ci Touba on a à peu près 3000 étudiants inscrits année préparatoire boobu itam dafa jar wax parce que bokk na ci li ñuy wax fii à Touba ñun dañu war a dindi année préparatoire yéen xam ngeen wax naa ko ci biir. bu dul woon année préparatoire bi kenn du espérer former profilu arabophone yi arabisant yi ci filière yi ñu leen di former muy loo xam ni état bi ci boppam moo ko dugal ci biir contrat bi donc la licence à l'UCAB dure quatre ans au lieu de trois ans l'année préparatoire L1 l ak l loolu moo lay may nga nekk un certifié c'est-à-dire boo matalee année préparatoire ak sa relevé de note L1 ak sa relevé de note L2 ak sa relevé de nga boole ko ak sa relevé de bu baccalauréat ak décision jury ci sa sortie document boobu la ñuy yóbbu direction des examens au concours ñoom ñu vérifier ko ba gis ni lépp tout ok plus sa photocopie carte d'identité carte parce que comme tous les diplômes diplôme bi dafa war a valable ci espace CEDEAO bi yëpp diplôme bu ne am immatriculation bu koy may numéro foo ko mën a déposé ci àdduna bi dañ ko mën a vérifier à travers l' vérifier l' authenticité à travers ce numéro boobu aussi du direct président université bi rek moo koy signé mais le ministre de l' enseignement supérieur ak moo koy signé wala le directeur général de l'enseignement supérieur ak le président de l'université Cheikh Ahmadou Bamba avec le cachet du ministre loolu mooy diplôme yi ñu joxe ni pour le moment wax naa ni ñu ngi commencé woon ci ay BT diplôme d' état BTS d' état actuellement des licences co-signées avec l' état euh, boobu nag étudiants yi yëkkati liñ cey laaj wax nañ ni la ci ëpp solo mooy retardu wala bokk na ca bokk retardu paiement wu bourse yi wax nañ ni bourse yi dañ koy fay tardivement ca loolu ñoom dañoo bëgg mu dakk parce que dañoo bëgg ñu leen di fayandoo ak seen nawle yi jàng tubaab te nekk ci université publique yi de la même manière nee nañ aussi euh, absence de logements sociaux loolu bokk na ci li ñuy revendiquer maanaam amuñu ay dëkkuwaay ci biir université bi absence de restaurant nee nañ aussi amuñu ay fu ñuy xewloo fu ñuy lekke ci biir université bi beneen bi nee nañ surcharge des volumes horaires cours yi ñuy jàng dafa bari njàng mi dafa takkaat naa si pour tontu ci lii bu gaaw yu bari tontu nañ ci bu dee bakk bu dee euh, bourse yi xam ngeen ni loolu sa incombe l'état état bi moo am responsabilité paiement wu bourse mooy fay bourse moom rek moo xam kañ la koy fay ak naka la koy fay critère de de de euh, nu mu tuddati euh, d'octroi de bourse yi aussi état moo koy teg ku muy octroyer bourse état mooy teg yan critère ci lay sukkandiku ba jox la bourse wala mu bañ la bañ jox bourse xam nañ ko par exemple étudiant boo xam dañ la orienté bu dee sa première année sa moyenne baccalauréat mooy déterminer est-ce que da nga am bourse wala doo am bourse malheureusement année bii passé daaw ñu ngi jot une liste d'orientation de mille deux mille quatre-vingts nouveaux bacheliers deux mille soixante-quinze la woon am ci cinq yoo xam dañoo nekkoon ISEP bu Richard Toll lañu leen envoyé woon orienté woon bi ñu fa defee deux mois ñu gis ni mënuñoo dem parce que yàlla barrière linguistique français bi ak mathématique bi jaaxal na leen ñu dem direction des examens au concours demande réorientation ñu indiwaat leen UCAB après bu ñu demandé est-ce que mën ngeen leen jël ñu ni waaw muy cinq yu ajouté wu ci 2075 mu nekk 2080 exactement sur ces 2080 il y a plus de 1700 yoo xam ni ay moyenne de baccalauréat de 8 ak 9 la ñu am loolu nag nekk une barrière bu leen di xañ pour ñu am automatiquement ay bourse pourquoi parce que pour nga am demi bourse te mooy catégorie bi gën a wàcc parce que bourse d'excellence moo nekk ci kaw bourse entière tegu ci demi bourse nekk ci suuf pour nga am demi bourse il te faut une moyenne de dix 90 ci série série littéraire yi te ñoom moom lañ def bac LAR lañ def donc ku amul une moyenne de baccalauréat de 10 90 tu n'as pas droit à une bourse boo ko amee am nga demi bourse ba 11 99 à partir de 12 nag une moyenne de 12 moo lay may bourse entière ngay am vingt mille francs par mois 20 40 euh, euh, mille francs par mois demi bourse bi ma njëkk a wax mooy 20 boo demee ba 14 li commencé 12 ba 13 99 yaa ngi am quarante mille bourse entière boo amee une moyenne de 14 jëm kaw mention yi yaa ngi am 60 mille bourses d'excellence chaque mois chaque fin du mois état bi nag. enveloppe lay fayee xam ngeen ko par exemple bu fekkee enveloppe bi 7 milliards la état bi dana naan day commencer fay les bourses d'excellence ñoom bu ñu jeexalee enveloppe bi ñii ci des dootuñu am droit ci bourse bu ñu jeexalut ci heureusement mënuñu koo jeexal parce que ñooñu bariwut ñi am ñi bokk ci bourse d'excellence yi dañuy dem ci ñi nga xam ne dañoo jàll ci ay écoles yi de formation yi par concours ENAM ENEA yeneen écoles yi ci des fay leen. bu ñu jeexalut enveloppe bi ñu ñëw ci bourse entière yi bu ñu jeexalut enveloppe bi ñu ñëw ci bourse demi bourse yi bu ñu jeexalut enveloppe bi ñu xool li ci des ñu def ko par quota loolu la ñu tudd ay aide sociale étudiant bu ne 100000 francs lañ lay jox aide sociale je sais pas maanaam dama ne ledd n'est ni obligatoire ni automatique ça ne veut pas dire que am nga bac état bi orienté na la rek automatiquement da nga war am aide boo demee Cheikh Anta gis ñu fay jàngee amuñu aide amuñu dërëm ça dépend ci enveloppe bi ci li des ak quota wu école bi li ñu ko jox dañuy bu ñu xool ban quota la ñuy jox école bi dañuy xool ñaata cas sociaux la am yan condition la étudiants yi nekk nangam nangam comme ECAP par exemple nañ naa ah, conditions yi metti na donc nañ fexe ñu massifier ñoom ñëpp ñu jox leen aide te noonu la demee directeur de bourses ñu ngi koy sant di ko gërëm liggéey bi def ci loolu c'est mille plus de mille sept cent yi ma leen tudd fii daf ci am ñu bàyyi ñëwuñu parce que liste bu ñëwee ñun ñoom ñoo ñu wax nañ ko trier nañu leen jox la liste des inscrits ñoom du ñu sukkandiku ci liste orientation comme état bi aussi pour la la prise en charge des factures du sukkandiku ci liste des orientés liste des inscrits ci lay sukkandiku. liste des inscrits aussi ñu nañ ci tànnaat nañ ci génnewaat les inscrits absents ñi ñëw inscrire ba pare génn dem parce que day am day am ay cas de doublon c'est-à-dire inscrire UCAB ba pare amaat bourse à l'extérieur dem jàngiwaat état bi di la boursewaat foofa eta inscrire waat ci beneen université bu nekkaat ci biir réew mi état bi di la bourse waat foofa wala nga nekk enseignant état bi di la bourse waat ci état du def loolu boo amee salaire wala nga am bourse wala yu mel noonu amuloo droit à une bourse looloo tax dañuy sakkuwaat ci établissement bi que nañu génnewaat ñi nga xam dañoo inscrire ba pare absenté gisatuñu leen surtout rawatina bu dee ay absence non justifiée bu dee ay absence légale day laaj mën nañ dem sax ba ñoom demander su demande suspension wu année bi donc lii liggéeyu établissement bi muy UCAB ci wàllu bourse mooy traitement des listes kan lañ fi orienté deux mille quatre-vingt bu dee année bii passée deux mille on deux mille pour l' année deux mille vingt deux deux mille vingt trois l' année académique deux mille vingt deux ñaata ci ñoom ñoo inscrire ñaata ci ñoom ñoo inscrire pare dem mu jël loolu lépp ci ay données. jox ko direction des bourses bu koy jox direction de bourses dafa am canal bu muy jaar mooy da koy envoyé division privée bu direction de l'enseignement privé di direction de l'enseignement supérieur ñu traité ko envoyé ko direction des bourses ñoom ñu traité ko envoyé waat ko direction l'enseignement supérieur su fekkente ni am na ci ay lu ñu war a ñoom tam ñu envoyé ko établissement bi ñu door a xool veuillez remplir ces données wala corriger ces données nangam nangam def ko en rouge ñu defaraat ko envoyé ko mu demaat su demee ba tout est ok ñoom ñu door a jël def seeni état de paiement programmé bu ñu waree fay fay. étudiants yi dañuy demander que nañ leen fay comme ni ñuy fayee mooy man li ma wax manière léegi ñi nekk ci public bi ñi nekk ci public bi Ecobank moo leen di fay état am na xaalis ak amul amul xaalis bu paiement jotee Ecobank dana dana fay li mu war a fay. bu dee ñi nekk ci privé bi ñi nekk ci public bi ñoom lañuy ñuy noonu bu dee ñi nekk ci privé bi ñooñu par billetage lañ leen di fay amul benn banque bu leen di fay loolu lu jar a xam la moo tax paiement yi léeg-léeg payeurs yi ñoom à leur charge ñuy déplacé wu di jóge Dakar di ñëw ba fii te loolu kenn boobu budgétisé wu ko déplacement yi ak risque yi mu am di yox ay millions di ko def ci seen poche seen saak di ñëw ba fii di fay ay étudiants. loolu itam état bi mi ngi ciy liggéey peut-être wante aboutir gut amaguñ ci résultat moo tax ba léegi étudiants yi dañ leen di fay par billetage am ci nag ñoom ñoo xam ni régime moo leen di fay da leen di woo congé mi bu ñu demee ñu fay leen am ñoo xam ne dañ leen di fekk seen établissement fay leen am na itam bu fekkee bëgg nañ ko étudiants yi mën nañ leen fay par transfert waaye booba étudiant bi mooy jël charge frais de transfert yi lii moo aju ci wàllu bourse boo amaatee information yu ngeen noté ñu tontu ko ci question yi mais li ci administration bi am lu ci UCAB am mooy defar liste yi ca joxe ko bu dee wàllu logement sociaux tudd naa ko jërul yàgg amul dara luy obligé UCAB pour mu construire ay logements sociaux fi mu nekk nii li gën a urgent pour UCAB mooy mu construire encore ay salles de classe ay amphithéâtre ay laboratoire ay atelier de formation professionnelle maanaam ay infrastructure pédagogique ak ay infrastructure de recherche loolu moo li li nga xam ni mooy urgence bi ci biir te loolu gis ngeen effort yi ci mën ngeen ko constater seen bopp parce que man jàpp naa ni loolu lu am solo la rôle bu am solo bu journaliste yi di jouer demal seen bopp sur le terrain xool la nekk Dakar lan la la nekk Bambey lan la la nekk Saint-Louis lu mu doon li nekk fii di projet bi sëñ bi ubbi ci Fatxul Manaan booy dugg booy door wàcc péage bi rek lan la ak lañ fa naan ak lañ fa jot a def ak fii aussi lan lañ fa jot a def loolu lépp sur financement propre kon li urgence bi mooy construire fu ñuy njàngee parce que bu naan université njàng ma d'abord dëgg la foo tëdd baax na ci foo lekk baax na ci waaye ñiy jàngee université Cheikh Anta Diop ñëpp bu fekkoon ku fa amul foo tëdd da ngay bàyyi dem ñibbi jàpp naan université ba dootul bari dañuy débrouiller ak dakaar ni mu xate pour di wut fu ñu tëdd di ñafe pour jàng bu génn ci loolu nag ci ndongo dara ci ku jàng diine lañ ko gënoon a xam moo tax affaire logement nekkagul priorité pour l'université dara obligé wu ko UCAB pour mu def ko du li ñuy fay li état bi di fayal étudiant par étudiant ci la logement mën a génn du aussi am na kenn kuy financé ku taxaw koo xam ni dañu man mën na maa jël loolu en charge bu dee itam wàllu restauration restauration exactement la même réponse amul dara lu obligé UCAB pour mu def ko bu dee surcharge bi foofu li ñu fi leeral bariwut mooy lu jëm ci wàllu volume volume bi xam ngeen ni nit ku am retard course sax jàpp naa ni ki mujj départ moo war a ëpp vitesse ba mu daw pour mën a dabe wala mu yegg dem ci kanam koo xam ni bi ñu ngeen ne da ngaa am bac ñu baree bari ci ñoom lire français seen problème la mathématique daanaka lañ ca jàng arab lañ ko jàng ci pour ñu mën koo jëfandikoo ci surtout ci formation bi ñuy def ndax le médium c'est le français ingénieurs yi aussi c'est des ingénieurs c'est des francophones kon ñoom am nañ benn retard benn gap bu ñu war a combler surtout sur le plan linguistique et technique et scientifique moo tax année préparatoire bi mais moo tax aussi que ñun dañuy jàngale plus d'heures lu ëpp heures yi ñeneen ñi di jàngale pour que ñu mën a dabe dama ci joxe anecdote bu tuuti ngeen baal ma presque jeexal nañ un jour à l'école boobu ñoom docteur Anne mii ñoo doon nekk classe di jàng un parent d'élève accompagné de sa femme dafa ñëw ni dafay seet dañuy seet si seen benn élève seen étudiante bu fa nekk di jàng booba c'était vingt et une heures passées à peu près ay vingt une heures vingt vingt et une heures trente mu fekk ma ci bureau bi may liggéey gardien bi moo ko indi mu ñëw ni damay seet diw ñu ni ko mi ngi classe ba léegi mu ni sëñ man mën nga ma baal ma wax la ma laaj la man la man ko lan la mu ni est-ce que c'est xale bu xëy jàng ci école ngeen téye ko ba heure bii naan ba léegi mu ngi salle de classe li ngeen def fan ngeen ko teg ma ne ko sa question bi lu valable nangul naa la ko ci ca dinaa la tontu mais nañ dem classe ba pare keroog bi ñu demee ñu ngi leen fekk ñoom ak seen ingénieur bi leen di former ñuy def ay ci automate programmable lañ doon jàng ay tapis roulant en miniature ak ay ascenseur en miniature di def ay travaux de groupe ñu leen di noter ñuy activer muy tàkk tapis roulant yi di daw kenn ku ne di yuuxu di am note moom bi mu ñëwee dafa taxaw di seetaan mu intéressé ko lool parce que c'est un technicien bi mu paree ma ne ko nañ dem parce que ñii duñ fi wax fii ci biir classe bi di leen perturber bi ñëwaatee ci suuf li mu a wax mooy baal ma àq avant ma koy tontu. parce que ñii xaw ma woon lii lañuy jàng ma ne ko lii ñuy jàng nag moo tax ñuy nekk ci école bi parce que bachelier arabophone nga ma indi avec un baccalauréat non ni mu war a génn fii nekk un technicien donc il faut mu def mu jàng plus d'heures par rapport aux autres sinon duñu mën a am les mêmes résultats yi ñu am ci yeneen école yi wala bay espérer naan dañuy raw wala dañuy dabee loolu bokk na ci li waral li tax ñu naan charge yi bi dafa bari ca may leeral parce que dégg naa étudiants di ko wax naan à à Dakar am na ay cours classes yi commencé cours de huit heures à vingt heures loolu amul et c'est à vérifier emploi de temps yi mi ngi ñun dañoo indil plus de, de, de des centaines de nouveaux bacheliers et nous avons des salles de classe nombre de salles de classe est limité ñu diviser leen par cohorte corte yooyu ñu def benn système de rotation ñii dañuy xëy ñii di gont ba bokkee ci aay da ngeen di xëy lundi ngeen di ñëw te ñuy jàng lundi ñëpp maanaam chaque classe sax chaque corte trois jours lay jàng dans la semaine ñuy jàng lundi du jàng mardi ñoo ñëw mercredi du jàng jeudi ñooy ñëwaat vendredi te ci biir corte bi aussi dañ koy diviser waat en deux am na ñuy xëy def cours du jour am ñuy def cours du soir à partir de 15 heures nga nekk fi ba 20 heures nga door a pare boo boolee li ñuy jàng lépp ci heure année préparatoire la 18 heures la ñuy def par par par classe par semaine au lieu de 36 heures boo ko comparé ak fii à à donc loolu mooy charge horaire yi. beneen bi ci des te jar naa xam mooy que formation yi ñuy def ci UCAB c'est des formations yoo xam ni euh, di direction de l'enseignement supérieur daf ko valider maanaam maquette de formation yëpp ñoom avec leurs techniciens et leurs experts experts dañ koy étudier xool ko xool contenu yi ba pare bu fekkee lépp aw na yoon ñu valide ko lu ci jar xoolaat sax dañ ñu koy renvoyer waat wax ñu defaraat leen li defaraat leen li te ci biir mot maquette de formation yooyu dafa am benn dañ ko renforcer du wax surcharge dafa dañ koy renforcer parce que foo école yi di defee ci benn module vingt heures ñun on demande de faire parfois quarante heures parce que maanaam vitesse de compréhension ak niveau de compréhension étudiants yi ñu am ak seen profil bi ñu am parfois dañuy soxla temps bu yaatu pour door a comprendre parce que dañoo am ay barrières sur le plan linguistique et technique moo tax nous sommes obligés de faire plus d'heures que les loolu ca pourtant loolu dañ koy def ñun à perte c'est-à-dire dañuy fey ci benn module lu ëpp li ñu koy jàng li ñu cay fay ci beneen école sëñ bi di ko surchargé foo war a def module nga xam ne mënoon nañu autoriser nga def module bi 20 heures dañ lay obligé nga def ko 20 heures pour étudiant bi mën a comprendre parce que profil am moo tax jàngkat bi aussi jàngalekat mën a am de temps pour mën a expliquer li mu expliquer yëpp ak ay def ay TDM ak ni mu war a defee loolu sëñ bi moo koy supporté parce que fa waroon def 20 heures nga def fa 40 heures ku ne xam na ngay fay double bi ngay fay et pourtant loolu lépp da koy forme da koy fay kon lii moo waral ñu naan njàng mi ci UCAB dafa bari ñii bi ñu déggee loolu ñoom dañ doon ree parce que xam nañ ni ñii dabaguñ leen en terme de surcharge moom maye nag résultat yi ñu am nii tey muy ay résultat yu satisfaisant kon ci cadre boobu dañuy wax ni ci point yi étudiants yi avancé UCAB day jël acte noté nañ li ñu war a noté lépp xam nañ ko mais li ñuy wax rek di ko déclarer ñëpp xam ko moo du ay mouvement de grève mooy entraver doxinu UCAP moo koy gàllankoor moo koy tey yegg ci objectif am ci déjà sax réaliser na ay objectif li ci ëpp mais du ko tee continuer te danañ war a jël bépp mesure bu ñu war a jël danañ ko jël am na ci loo xam ni nag ça appartient à Sëñ Mamor qui est à la fois un président pour l'université Cheikh Ahmadou Bamba mais un marabout aussi koo xam ne toujours clémence yërmande nooy wet masla lañ ko xamee ak pardon waaye ca moom itam dana recevoir étudiants yi parce que bind nañ ko lettre pour rencontrer ko dana leen rencontrer bu loolu jàllee ci ndigalam danañ jël mesures yi ñu war a jël yu ferme pour la continuité des activités voilà d'enseignement et de formation loolu mooy li ñuy déclaré pour ñëpp dégg ko maa ngi jégalu ñëpp ci guddal gi waaye dañoo bëggoon joxe rek maximum d'information kenn ku ne après mën nga ci jël li nga bëgg a jël su ko defee question yi aussi dana tax mu gën a mu gën a am solo asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa bon voilà très Euh, am na ci pour la réponse je peux répondre directement waaw am na ci euh, loo xam ne gis nañ ko ndax du lu nëbbutu gis nañ fi benn euh, kuréel noonu laa ko mën a tuddee koo xam dañ ni ñoom dañuy jóg ngir di dox pour aar. ak ak yelleefu arabisant yi noonu laa ko mën a tuddee daal ci wolof maanaam lu jëmale njàngum arab kanam moo leen tax a jóg loolu ñun ñëpp lañ bokk parce que ñun ay ay euh, arabisant lañ comme ñoom nee nañ ñoom bi bi euh, xibaar bi génnee rek xale yi banque seen loxo génn kayit woowu mu circulé dañoo gis ñoom tam lettre bu bind ak seen en wax ni ñoom ñi ngi ci wetu étudiants yooyu di leen appuyer di leen dooleel ca loolu sans pour autant ñu ñëw ci ñun pour laaj ñu wala sax ñu ñëw def ay investigation ba xam mbir mi nu mu demee loolu nag boo amee kon xam nañ ni ñii nëbbutuwuñ waaw euh, ah. fédération communiqué baa ngi nii bëgguma leen tudd vraiment pour defal leen publicité voilà c' est bon. te na ñoo xam ne ISRA lañ jëlee lañ jëlee kii waaw. tout à fait xam nga ñun suñ université dafa apolitique ñun dofi doxuñu lu jëm ci wàllu politique Serigne Mamour ku ko xam xam ni mosoo koo dégg mu def benn déclaration lu jëm ci wàllu politique. te pourtant toujours muy collaborer ak état bi waaye mosoo dégg mu def benn déclaration politique loolu nag mooy suñ ligne de conduite bi ñuy jaar bi université bi di jaar bu ñu gisee kon ay mouvement d'obédience politique yu dugg ci biir étudiants yi di def ay déclaration kon dañu danañ ni ah attention am na lu ci dugg loo xam ni ingérence la am na lu ci dugg lu bokkut ak sunu suñu gis-gis ñun loolu xam nañ bu baax infiltration bi

si am nañ responsabilité ci bourse parce que ñun ñooy traité liste yi jox ko direction des bourses euh, avant directeur des bourses dafa mardi daf ñu woo réunion ak délégué wu amicalu étudiants yi ak moom presque mën naa ni personnel wu direction de bourses bépp ñu def ak jataayu lëlu ñu def benn réunion boo xam ne leeral nañ fa étudiants yi lañ njëkk jox kàddu ñu leeral fa lépp lu aju ci seeni naqar ci aju ci wàllu bourse bi ñu paree question yi nga xam ne ñoom posé nañ ko da ci am yoo xam ne ñun ñoo ko war a tontu parce que ñun la concerné directement yooyu question c'est des question c'est des détails en fait technique classe sàngam ña fa nekk dañoo amoon retard wax nañu li si de dem ak yu mel noonu ñun on a répondu à ces questions là questions posé woon ci wàllu woowu yëpp tontu nañ ci directeur des bourses rappelé na ne étudiants yi que ni booy def grève ci affaire bourse da nga war a xam d'abord li nga war a jëkk a xam mooy ni am na benn texte boo xam ne mooy régir affaire bourse da ko war a liir ba mu jeex pour nga xam lan mooy sa àq ak lan mooy sa yelleef yéen lii ngeen di revendiquer ak lii ngeen di laaj lépp texte boobu wax na ko bokkoon na ci li gën a naqari étudiants yi dañu jàpp ne ñun ñooy dagg ñenn ñi di leen génn ci liste yi. bu ñu inscrire ba pare ñun ñoo leen ciy génne directeur wax leen ni ñoom ñoo demandé ci université bi ñu di ko jox ay list yu propre yoo xamante ni ñi teew di jàng kes ñoo ci nekk ku inscrire bokkoo ci ku ñëw inscrire ba pare di absenté bokkoo ci loolu dafa am solo ñu bàyyi ko xel euh, loolu moo ci ëppoon responsabilité mooy affaire list yi ak traitement wu traitement liste yi léegi nag léegi nag. Euh, euh, am na lu ajuwaat ci wàllu bourse yi étudiants yi di ko wax toujours mooy pour ñoom dañoo gis ni dañ leen a war a fay ni ñuy fayee seen moroom yi ci des ca ba pare dañ leen di war a fay en même temps maanaam bu fekkee ñaar ñu bokk ndey ak baay dañoo bokk génn kër kii ñu orienté ko jàng tubaab ñu orienté ko UCAD UCAB UCAD UCAD Université Cheikh Anta Diop ki ci des ñu orienté ko UCAB Université Cheikh Amadou Bamba ki ñu orienté UCAD mooy njëkk a dem jàngi moom mooy njëkk a jot orientation moom la ñuy njëkk a fay te buñ koy fay mën naa fayee ko banque mais ki nga xam ni daf ko dañ ko orienté UCAB moom day fay yéex a jot orientation day yéex a fayeeku yéex a fayeeku googu nag moo aju ci bourse yi ñoom loolu la ñuy revendiquer loolu liñ ci leeral ñun mënuñ ci retard boobu dara lu ko waral parce que dañuy recevoir étudiant wu UCAB dañuy recevoir étudiant wu UCAB tardivement fi mu nekk nii campus bi ubbeeku ubbeeku na plateforme bi étudiants yi am bac ñëppay dugg ci biir demander orientation suñu paree dañuy jël ñoom li département arabe mën a jël pour les arabophones les bacheliers en arabe la ca des nag danañ toog ba mois de février wala mars d'habitude ñu doog koo jot bu ñu jotee ay liste d'orientation au mois de mars te ñoom ak ñi ñu orienté ndoo au mois d'octobre wala novembre ñoo war a bokk même année académique xam ngeen ni retard mënut a bañ am parce que après bu ñu la réception des listes d'orientation il faut ñu ñu def li war a def yaa a des procédures inscription bi dañ koy ubbil durée dañ naan une durée de deux mois parce que étudiants yi plus de 2000 boo leen bëggee inscrire ñoom ñëpp ci un mois boo muy dana am ñu ñëwut créewaat yeneen problème bu ñu ci tegaatee deux mois pour les inscriptions ci mënuñoo envoyé benn liste ci deux mois yooyu jeexul deux mois yi bu jeexee ñu door nag defar liste bi envoyé ko division de l' enseignement privé euh, l'enseignement supérieur direction de l'enseignement supérieur ñoo ñu traité envoyé direction des bourses ñu traité s'il y a des à rectifier ou à corriger ou à ñu defaraat envoyé waat ko direction de l'enseignement supérieur mu indiwaat ko ci ñun bu ñëwee ñun ñu jotaat ko defaraat ko door ko envoyé donc toutes ces procédures là comment ñun nan lañ mën a def pour éviter que am

université Cheikh Ahmadou Bamba d'ailleurs dama lay renvoyer waat ci contrat bi peut-être mën nga ko gis nga xam ñaata ñaata par étudiant ñaata la ko état di fayal loolu rek social la mënuñu ko wax ci micro yi loolu rek social la d'abord nga nga accepté étudiant bu toll noonu te xam na ni ci filière de formation yi ñu nekk boo demee ay mensualité de cent mille francs cent cinquante mille deux cent mille la ñuy fay d'abord kon fii mooy boo xam ni état bi da lay fayal. te lim lay fayal rek fay gi rek ni mu toll d'abord foofu la social bi commencé beneen bi ci des mooy boo nekkee ci biir université bi dañuy associé ci lépp mboolem infrastructure yi ñuy def ba ci lu jëm ci cadre yi ñuy dajee ndimbal bi leen sëñ bi di toppatoo di taxaw ci seen i activité même culturelle activité religieuse daayira bi nekk ci biir seen amical bi li ñuy def lépp sëñ bi def ci ñëw bokk participer beneen bi ku wone xam na ni formation professionnelle parfois day laaj incubation bu jàngee ba pare boo demee Bambey dafa am benn espace bu yaatu boo xam ne sëñ bi moo leen ko aménagé defal leen fa ndox ak li ñu soxla lépp jox leen intrant ak matériel agricole ak ay semences ak li ñu soxla lépp pour que ñoom li ñu jàng ba pare ñu mën a amaat année une année de plus boo xam ne dañuy toog foofu di ko pratiquer. te buñ koy pratiquer bu bu ñu paree lañ ca génnee dañoo wax dañ koy bokk ak école bi sëñ bi daf ne nañ leen bàyyee lépp nañ fa toog une année boo xam dañuy exploiter jël. étudiants yu bari foofu la ñuy amee départ capital pour bu ñu génnee surtout ñuy def agriculture élevage pour mën a dem defari seeni i ferme bopp wala ñu mën a dem defi seen activité bopp. loolu lépp c'est du social bokkul ci contrat bi bokkul ci charge yi war ci université bi. yaakaaruñ ko yaakaaruñ ko ci porter porte plant sauf ko ci niveau bi ñu toll nii jaragut lu mel noonu parce que ñun université la boo xam ne c'est une université à vocation religieuse c'est-à-dire que lu ñuy def lépp ci wàllu dafa am dañoo am ñun euh, ay valeurs yu ñuy doxee bokk na ci pardon bokk na ci ouverture bokk na ci aussi bokkoo ak ñëpp looloo tax euh, ubbiwuñ front de bataille contre quiconque ñun loolu du suñu objectif taxu ñoo jóg mais lii dañ koy wax pour ñu xam ni xam nañ ko léegi nag am nañ suñu stratégie interne yu ñuy def ci wàllu jëflante bi ak wàllu doxalin bi ba loolu du mën a gàllankoor doxalin bi. waaw étudiant grévistes yi xam nga étudiant moom toujours da ngay comprendre situation sinon kon da nga naan à partir de jour tel danañ commencé waat ay cours képp ku ñëwul dàq nañ la parce que loolu moo nekk ci certificat d'engagement yi waaye nag sëñ moom ku ne xam na yërmandeem moo tax am na ci déclaration an mënuma koo def fi ñu toll nii wante wante mënul nekk nga nekk ci université ba pare di saboter doxalin bi ba pare ñu continuer bàyyi la ngay saboter waat doxalin bi parce que da ngay yàq lu ñëpp bokk loolu moo tax ñi nga xam ni nag dañoo continuer ñoom euh, maanaam xaw a fétteerlu ci li ñuy def ñoo ñooñu danañ jëflante ak ñoom partout tous les moyens nag pédagogique ak yeneen ak yeneen.